asalaamaaleykum wa rahmatulah mbokk Sénégal ñu ngi leen di nuyu kenn ku nekk sa tur ak sant euh, di leen wax ne vidéo bi moom du gàtt pardon du gudd laay bëgg a wax sax na gudd du gudd bokk euh, par rapport ak nag loolu sax du sujet bi tey sujet bi boobu doon si ñëwaat mu gën a position position bu baax a baax incha allah bi mooy image yi nga xam ne nii Sénégalais yëpp ñu ngi koy gis. muy réception bi nga xam ne nii euh, on peut dire maintenant l'ancien président bon mooy président encore ba 2 avril donc président Macky Sall accueillir na recevoir na Ousmane Sonko ak Bassirou Diomaye démocrate bu ne nag doo def lu di ko rafetlu di ko rafetlu liñ ci wax nag moom bañ ko njëkkee gis li ci njëkk a xalaat xam naa na moom bon ni ngeen ko comprendre rek mooy commencé naa si wax dama damay bàyyi ba suba ba toog door si def suma analyse waaye amul problème Ehm, di wax rek ku ko gis ku ne loo njëkk xalaat boo gor bu ko gis boog man boog bu ma ko gisee li ma njëkk xalaat rek mooy li wolof njaay naan aduna du cere waaye des koy laalo aduna du cere waaye des koy laalo lépp lu waaye def si aduna rek rafetal ko rafetal ko vraiment image yi ko gis man nag man nag bettu man image yi du bettu ma de woon alxuraanul karim li ma def say ay chronique wala vidéo naan di wax image bi naan bis bu naan que yàlla def si mu war a nekk cinquième président de la république bu ko yàlla defee mu nekk Ousmane Sonko bañ ba jour ba ñu def prestation de serment ba Macky Sall eh, ñëw ndeysaan tapis rouge bi ñuy tàggatoo mu jox ko loxo Macky Sall dugg si oto bi ba xam nga loolu moo am tey wala Macky Sall image yi gëmoon yàlla suuraale ko war nga da nga da nga rafetal. ndax li xew boon bëri na ñaaw na bëri na ñaaw na lu ne xew na fi ndeysaan te tey nag ndogalu yàlla mooy lépp ñu daal gëm yàlla rek moo am solo ak jub jub dem jub moo am solo ak gëm yàlla yàlla nañ si yàlla dimbali ñu gën di jub te aussi yàlla nañ yàlla may mujj rafet mais daal image si ko gis di ko rafetlu ndax démocrate nga républicain waaye daal nañ fexe ba ñëpp ñi nga xam ne nii li waroon a réglé wu ñoo fexe ba mu déréglé wu di exécuter ay ordre illégal def ba yi Sénégal ñàkk seen bakkan waxuma fayantoo de fayantoo moom dof rek moo koy xalaat waaye daal wax dëgg yàlla justice mooy dexoon réew ñi si ñàkk seen bakkan ñi si loolu bari nañ war nañ fexe ba situé responsable yëpp ba nga xam ne ni lii ëllëg du am même bu ñuy condamné nit après baal gracier lu ñu mun def ñoo xam mais nañ indi leeral fépp fu défaillance am fépp fu fu déréglement am ah nañ ko leeral Sénégalais yi bi may commencé vidéo bi loo xam ne ni anecdote bu bëggoon a wax man lépp boo bëggoon a wax xam lépp wax lépp nag baaxul mais des fois tamit nit dana juum bon nga bàyyi noonu mais des fois tamit am na loo xam ne war nga di informer nit pour nit ki nit ku dégg lu mel ni ëllëg ngay moytu def yu ñaaw quoi xam nga Ika News moom yàlla dafa def depuis deux mille dix-huit yaakaar naa mi ngi ci terrain bi fii diaspora bi avant ñoo ngi nekk ci yeneen activité muy Africa 24 ak yeneen fu ñu liggéey ci ñu dem journaliste wax dëgg yàlla ku nekk couvrir naa def événement yàlla def waa APR yi ak même Mauritanie ñi ma leen ñi ma leen couvrir leen couvrir lu ma ko kenn ba jàmm mi am nag laa wax de ndax wax dëgg yàlla moom li fi mujj am nii moom je me voyais pas couvrir yenn événement yi euh, événement APR yi mais daal ñu xam ne li ma leen li ma fi couvrir ba Île-de-France fu ne ba mant la Jolie ba les Mureaux yàlla ma tiim xam na ne couvrir lu ma ko kenn ba législative yi mujj rek ñi may li may war a wax nii sax eh, ñi nga xam ne ni ñoo ma def jëf ji keroog si jour soirée électorale bi ma ànd ak ñoom fi dem Château Rouge Barbès defal leen ànd ak ñoom dugg si commercant yi filmer leen def reportage bu am solo ku dem si YouTube yi kaa ñëw sax <laughs> mun na nga ko gis diviser ko Sénégalais yëpp jëriñoo si ñoom it wax dëgg yàlla commu defal leen communication muy suñ liggéey rek wax dëgg yàlla mais nag soirée électorale bi jour vote bi 24 mars bi. ndogu bi mu jotee dama ñëw am taaw gars yi def ay ndogu côté bu ne ñoo ñi nga xam ne am ñu ko def xam nga nag kenn nit lu mu def it wala ñaari nit doo sikk ñëpp ñooñu seen responsabilité mais bu buñ si tombee si vidéo bi daal ñu xam ne juum nañ ëllëg mu bañ leen a dal ndax damaa ñëw an ak sama jabaat boo xam ne wax dëgg yàlla c'est personnel boobu fii la nekk ñoo fi am lu muy lijjanti di jógee Sénégal ñu dem bëgg a ndogu bëgg a jël suñ ndogu ñu ne ah man du ma bind si ñoom wala li may wax ñoom dafa bëri en tout cas dama leen di dama leen daal entre guillemets euh, Pastef la genre ñu ne duñ ma jox ndogu ma def nañu caaxaan ñu def dëgg ma ne sama jarbaab bi amul problème man ku xam fa ma jógee ak xam fi ma bokk ak may waajur lañ sama fa ma jógee dëgg-dëgg ñu ma xam dëgg xam nañ ne man ah bu ma nekkee France bi tey la vingt quatre ans si àdduna musuma xiif ba ma étudiant sa musuma xiif ba ma laa léegi nag ma bàyyi leen fa dem wax dëgg yàlla teewul nag man. fu ma taxaw su mbedd fu ma taxaw noonu génn fa laa ndogu ba naay sandwich yi café yi waa Pastef yi ña ngi fa feex del mbedd mi sax ku fa taxaw mburu yi dàqante pour wan la rek ne adduna moo tëddee noonu du dara nag sax man nañ ko ñàkk di wax rek waaye daal ñaari nit rek la nag ñaaree nit nag lu ñu def lu ñaaw du ñëpp ñooy suñu responsable ñëpp la mais daal yal nañu yàlla dimbale rek te lépp lépp lu si am solo lépp c'est Sénégal ki gagne ñun ñëpp ñoo bokk Sénégal donc nañuy góorgóorlu rek di def lu rafet ndax image yi tey moom li ma ko waxee rek. war na yee ku bëri àddina du cere waaye des ko fay laalo lépp lu waaye def rek na koy rafetal ndax yàlla rek moo xam mën nga jekku nit tey ëllëg mu jekkuloo donc même bu loolu sax doomu aadama daal jubala rek jub mooy lépp di leen jaajëfal bu baax